Touba si kanam di wéyal programme am si Touba ginnaaw bi leen ràññee si wàllub social dimbalante si fànn bu mu mënti doon ñu amoon également programme si wàllub tabax ay infrastructure ngir jàppale population bi si fànn bu mu mënti doon également lu si mel ni ay barabu fajukaay ak yeneen ak yeneen tey jii nag dugg nañu si wàllub environnement programme de reboisement bu mag la amal ci dëkk bu sell bii lu tollook juróom-ñaari kilomètre bàyyeekoo si frontière Touba ak Mbàkke jëm jumaa ja naka dimanche bi yemook juróom-ñetti fan si septembre mu doon bis bu historique ndaxte sax lu ko jiitu woon di samedi xalif général des mourides mun Mountakha Mbacké bi muy dem Diourbel jaaroon na fi njëkk amal reboisement si cocotier yi ñu gis si ale Touba Mbacké yitteel la askan wi yëpp teew partagé nag liggéey bi ku nekk yaa ngi si sa waar bu dee ñii ñi ngi gas am na ñoo xamante ni ñoo ngi si wàllu grillage bi ñeneen ñii di jëli ndox daanaka mën na nañu jàpp ni benn fan amal na nañu juróom-ñaari kilomètre liggéey bi nag kenn desul woon muy daayira yi di borom kër yi xale yi mag ñi ndaw yi ñëpp teewoon nañu ba si kilifa diine yi ñëw ngir barkeelu si li gën a yéeme nag di mag ñi làq at yu bari waaye nag ñu ni jaayante bu nu mel moom kenn du leen ko nettali ndaxte Serigne Touba jaaxal na leen ko. ndax doonu ñaan yàlla fekk liggéey suñu tubaab bii suñu suñu taxaam yi liggéey doonu ñaan yàlla fekk ba liggéey si jëf suñu tubaab ak jaamu yàlla dama meex na ko yemale fii ndax sëriñ tubaab lu mu bëgg ba di ko deflu ak jaamu yàlla doon ñu sëkk ndax liggéey suñu tubaab rek moo am solo ndax sëñ Modou Sylla bu deeru ñuy xëy da wax na ni ñaari gone yi nekk ci biir kër gi sax kii ñu bor yóbbu ci liggéey sëriñ Touba ki ci des ñu bàyyi ko ci kër gi nee li fi buftee wal ki ci liggéey suñ bi moo moo gën a jàpp maa ngi sant sëñ bi bu baax fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall darajey Cheikh Fallou Fall di jaay wu ñu ngi sant di leen gërëm yàlla taxawaay bi yàgg sëñ bi yàgg fi te na yàgg yàgg woo ñu yàgg koo liggéeyal barke Cheikh Rafal travaux yi ñu sumb si diggante Touba ak Mbacké di wàllu environnement Touba sa kanam di ko lawal partout si Touba ngir alam gi gën a yemb si barab bii nag ñu koy amal du ñàkk ñu am njortu nii dina am ay gàllankoor loolee nag ñi ñëwoon jàpp si liggéey bi ñu ngi sensibiliser ngir ñu mën ko sàmm ndaxte patrimoine yoon wi la. waaw moom ci xalaatal ndax euh, a ñoom daal dañoo dañ dul daw ndànk waaw lool daal mooy mooy sikk waaye bu ñu bu ñu defee ndànk rek bàyyi ko fi dana dana baax incha allah. ndigal Serigne Touba da man du ma ànd ak kenn ku ko yàq képp ku ko yàq it da ngaa xamul li tax nga di ko yàq waaye jërul yàq bu ci kenn topp sa kan ba yàq ko. kuréel gii di Touba sa kanam mi ngi participer citoyennement si développement de Touba jël ay fonds yu tàkku di koy dugal si fànn yu mënti doon mu doon santé éducation sécurité sociale ba si wàllu environnement ci seen programme am na ñu yeneen naal si kanam ñu ni kat lépp rek dañ ko def ngir jaayante si waaru Serigne Touba Cheikhul Khadim